Macky Sall yi daje tey yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu mooy majorité présidentielle mooy liñ daan wax Benno Bokk Yaakaar mais ña ca toftalu yëpp ba nga xam ne tey gannaawam yaatu naa yaatu koo xam ne ñëpp a ngi ciy sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin may nuyu aussi presse bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi nii teew di ñu déglu jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ma baamtu rek ci li nga xam ne léegi wax nañ ko ci tubaab président Macky Sall son excellence président de la république un homme responsable un leader un grand boss le chef de l'État kooku nit ku xam gëdd nit la nit ku xam gëdd mag la nit ku xam gëdd kilifa diine la nit ku xam gëdd xale la nit ku xam gëdd jigéen la nit ku xam gëdd baykat la kooku tey moo ñu tax a toog fii ndax kàddoom ñun dañu koy sàmm kàddoom dañu koy dëggal di ko xeex pour mu am moo tax tey ñu daje fii pour dooleel ki nga xam ne moom la Macky Sall tànn si ñun muy jigéen comme ñun di jàmbaar tudd nañ ndomb tànk yi fi am yépp ndax Macky Sall du cuune du tànn cuune kon bu tànnee kooku muy jigéen ñun nag jigéen ñi dañ war a jóg takkoon nañ sax suñu sër yàgg na ci gannaaw suñu responsable muy Macky Sall mais dañ ko gën a takkaat nag tey parce que daf ñu gën a joxaat confiance président de la république di ko wax nag jërëjëf Sall jërëjëf sàll lam toog ñun de ñu ngi taxaw ci sa wet tey ak suba ba ëllëg kon bu ko joxee Mimi Touré ñun dañuy taxawaat fii tey nekk ci gannaam kon nag na nga xam ne yow la première ministre yore woon conseil économique social environnemental nekkoon conseillère spéciale ñu ngi nii taxaw ci sa gannaaw ci sa wet ci sa kanam ak ci sa gannaaw ak ci sa wet pour gunge la ci lii nga xam ne moom la la Macky Sall dënk ba bésu 31 juillet. deux mille vingt deux ci at mi ñu nekk ñu ne wiiw Benno Bokk Yaakaar mais bi ñu wax wiiw bu ndaw dañoo bëgg wiiw bu mag a mag boo xam ne dañuy gunge nag kooku ci assemblée nationale nga xam ne bu Macky sàll toogee dina am en face euh, beneen institution bu dëgër boo xam ne moom itam indépendance bi ñu gën ko xam nag justice euh, euh, institution bi ñuy wax justice taxaw. ñu mun a gën a liggéey réew mi parce que Macky Sall dafa ñoo andi PSE PSE boobu plan Sénégal émergent mooy vision am vision nag tant que déroulé woo ko tegoo ko ci yoon rek vision lay doon maanaam gént mais tey ñëpp xam nañ ne géntuñu tali yaa ngi fi nit ñi di ko gis ak leneen ak leneen duma lim mais dama ciy lim bi nga xam ne rek moo mujj bi nga xam ne moo mujj mooy bi mu jël lu ma téeméer ak ñeent fukk ak ñett junni waxuñu nit de ménage la wax maanaam ay famille mu jagleel leen ku nekk quatre-vingt mille mooy fukki junni ak juróom-benn ku nekk tëb rek jot ko ci sa téléphone man boobu rek laa ciy tudd parce que dee rek yeneen mu ngi fi bu ma ko bëggee tudd du ma fi jóg ñëpp xam nañ ko boo leen ko liiree ci presse bi di ngeen ko gis. mais jeexital bi nan la jeexital parce que Macky Sall li ko fi andi mooy mu jàppale Sénégalais yi mu defoon ko ci yoonu yokkute mu ñëw def ko ci plan Sénégal émergent ku nekk war ci gis sa bopp te nit ñaa ci gis seen bopp jigéen ñaa ngi ciy gis seen bopp ñëpp a ngi ciy gis seen bopp mais tey lu tax ma tudd loolu famille 543000 famille dafa am solo xale yi dañ cay ëpp ca biir kër ya. problème yi bëri fa problème mu dund bi problème mu njàng mi problème mu faju bi kooku boo toogee loolu yëpp nga am problème am tëba tëb rek jot fukki junni ak juróom-ñett te fekkoon na nag nga am bourse familiale ba pare fekkoon na fekkoon na ndax mbir mi dafa bëri mënuñ toog fi di ko lim kooku boo ko jotee ci jamono bii surtout ñu toll ñuy waajal tabaski nit ñi di xalaat xar di xalaat seen doom yi solo di xalaat leneen kon tey loolu boo ko àndee gàcce ngalaama président de la loolu ba ñu ko waxee ba pare dañuy ñëwaat wax leen ne dañuy insister ci xale yi ci jeunes yi nga xam ne opposition bi ñu janoon ñun man day Ndeye Name Diouf ñu may wooye Ndeye Name Diouf la Lionne de Fatick bu Macky Sall man gëw ma ne dañoo janook opposition parce que ñun da nekkoon nañu opposition ñëwaat pouvoir bañ janoowee nag dañu amoon ñun programme ñëpp xamoon nañ yoonu yokkute moom lañ doon ñu nit jéem a proposer sénégalais ñu wàcc ci sénégalais yi seen kër yi di leen ko won di leen ko wax di échanger ak ñoom ba yàlla am nañu ci nguur gi ñun dañu yaakaaroon ne noonu la opposition di mel waaye opposition boo xam ne ñoom ña seen biir ku nekk sa bopp nga gis ku nekk lan nga gis làkk sa doom dóor doomu jàmbur maanaam làkk sa doom yóbbu doomu jàmbur ci tali bi na leen xeex leen ñun nag ay yaay lañu ñun ñii bu ñu nekkee cadre ba pare dañoo nekk ay yaay nekk ay mère de famille yore suñu njaboot ñu nitam suñu njaboot yooyu duñu bàyyi ñu nekk ci tali bi di xeex ñu di leen rey kon ñu ngi man ñu ngi lancé appel jigéen ñi comme ñun di leen wax ne téye leen seen doom yar leen seen doom yi si biir kër gi yee leen ba mel ni bu mu leen yóbbu ñun loolu lañuy ñuy woote tey jii moo tax ñu toog fii yar leen seen doom yi ci biir kër yi woo leen seen doom yi ci biir kër gi yóbbu leen école yóbbu leen leen hôpital bu ñu feebaree faji leen téye leen leen yee leen ba ëllëg lu mel nii bu mu leen yóbbu di woon nit ñi ci xeex fit fitna baaxul ñëpp xam nañ ne tey fii ñu toog nii journaliste ngeen toog ñun ñu toog jàmm moo tax ñu mun a toog fii dal mun a def suñ point de presse fii tey bu fi benn bal tàkkoon rek ñëpp départ parce que jàmm lu dul jàmm jàmm ko gën kon Macky Sall mu ngi woo ñëpp ci jàmm woowul kenn ci ay mu ngi koy def ci bi mu nekkee pouvoir defoon na ko ca ba mu nekkee opposition ci jàmm rek lay dox kon ñu ngi woo ñëpp ci jàmm ñu ngi woo ñëpp ci dal xale yi ñu ngi wax ak yéen ñun seen yaay lañu tey man sama doom bu génnoon ci mbedd mi ñu boom ko ñaanuma ko yàlla kon bëgguma doomu jàmbur génn ci mbedd mi ñu di ko boom kon loolu aussi ci li ñu war a wax la ci nga xam ne nag euh, Marème baabu moom tudd na ko wax dëgg yàlla man euh, sama yaay la parce que nit dëgg rek ngay wax sama yaay la ndax ñun dañu nekkoon ak mag Sall ca PDS jóge ñoo def APR ñu doon ñu encadré ca euh, PDS kon bu tëbee wax li dafa juum man dama jàpp ne dafa juum rek te njuumeel googu xam naa bu tëbee si lalam ba seetaat xelam xam fi ñu jaar ak moom ba yegsi fii dina rectifier muy sama yaay Aminata Tall man loolu rek laa koy wax yaa booy da nga juum rectifier li nga doon wax bu ma paree ci loolu donc ñun suñu mébét tey mooy élection yi ñu jëm di le 31 juillet 2022 te dina am nag incha allah élection yi dina am xam nga lu tax dina am opposition boo xam ne boo wootee yow ma woote sax doo dem nga yaakaar ci woo doomu jàmbur ñu génn si mbedd mi xale yi bañ ku nekk di protéger ci quartier boo toogee fi naan élection du am loolu li xale yi di wax de wax bu dee rek ñun dañuy dund dund gi nag dañ koy doxal ñu nekk ci pays démocratique une république boo xam ne dafa am ay institution institution lu mu wax moom la ñuy doxal booba ñun juddooguñ ba léegi dañ fi fekk institution yi président bu ñëw dëgëral ko Macky Sall ñëw gën ko dëgëral encore def séparation des pouvoirs kon tey ñu bu prononcé woo tey benn élection dafay am élection day am lu tax aussi parce que dama leen di wax na juróom-ñett lañ la ñu validé juróom-ñett yooyu ñoom ñoo taxaw war a dem élection kon buñ ne opposition biy woote ay xeex ak ay bureweek yooyu mais beneen opposition baa ngi fi opposition du ñun ñun ñoo nekk oppo pouvoir ñun Benno Bokk Yaakaar mais yeneen juróom-ñaar yëpp ay opposition la benn coalition rek defe naa moo ciy woote xeex ak ay fitna benn boobu mun na tax élection du am xanaa nekkatul nag démocratie démocratie da ngay am li nga bëgg keneen it am lu mu bëgg ñun ñëpp ñu ànd na ku nekk def li nga mën ñu xeex bi xam nga mooy lan mooy ñu dem liggéeyi wàcc sénégalais yi jox leen programme yi wax leen fu ñu bëgg a dem sénégalais ku ci nekk xool bésu dimaas nag ku nekk yeewu kenn du la wax defal dara nga dem ca isoloir ba jël sa bulletin de vote voté ki nga bëgg loolu mooy dëgg bi te dina am incha allah rabbi kon man lii laa bëggoon tënk parce que tënk laa ko def ci woote bii ñu leen woo muy ay cadre yu toog yu jigéen parce que suñu càmmeñ yéen a leen di gis si suba ba léegi ñuy dugg ak génn di ñu accompagner ñu leen gërëm ñoom itam euh, waaw tëgg bool xam nga loolu ku jaaxle la rek ndeysaan xam nga woote kenn wuy la boo jaaxleel ci lu ne ngay dugg waaw daf may kii mu ne ma casserole yi tëgg casserole ak bool ma ne ko nag bu ma sax wax loolu bugguma sax dugg parce que nawet lañ nekk te xam ngeen ne nawet dañ daan ñun des suñu jamono dañ doon wax ne bu ndox laalee suuf nañ bàyyi tëgg yi loolu lañu doon wax ñun waxuma laa nag ñu ne nañ tëgg ay weñ kon loolu man dama jàpp ne rek opposition boobu parce que ñoom ñëpp nag ay sénégalais lañ nañ wax ak ñoom rek ne leen delloo si leen xel yi rek ñu àndandoo ngeen opposé ñun ñu nekk au pouvoir ku mun sa morom duma kon nag ku mun sa morom duma mimi nag nee na ñu àndandoo dem jëli ndam li inchallah kon tëddali de Mimi Touré ñu ngi ànd ak yow ci loolu au soir du 31 juillet gaañi cher cadre nañ leen jëli ndam li kon vive Benno Bokk Yaakaar vive la majorité présidentielle